saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekkaat fa Ama Baldé ak Modou Lo ak ak Luc Nicolaï ma accélérer la cadence Luc accélère la cadence loolee journal ba xamle diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñi ko doon laam bàyyi leen mu sedd ñi doon laam-laamee ndax dana amam du am wàcc leen seen garde première jàkkaarloo ba jàpp nañ ko la 4 février ca TFM loolee la journal ba xamle diggante Modou Lo ni mu leere ku ni say mbir leere woon yaa ngay muuñ a karee bu waxante mbir ma ñu teg ko fu leer nañ bu dee diggante ñaari mbër ya Modou Lo ak Ama Baldé le 4 février la règlement de compte ba le 4 février la diggante Modou Lo ak Ama ñu taxawal combat ba ba léegi kenn déggagul Ama Baldé ngaa ngi wax ci Modou Lo Modou kenn déggagul mu ngaa wax ci Ama Baldé waaye le 4 février faaw ñaari mbër yi waxante face à boobee nag le journal ba xam ne mooy bu naree fomm ca Zil Baldé lay fomme moom ba a wàcc la woon ca arc en bu Lac ca diggante Gris 2 bu Fass ak Abdou Diouf bu Waalo yile ñaari mbër démb la ñu jàkkaarloo Mamadou Dieye Sène moo taxawal bile combat Gris moom waxam bariwu ca la mu xam ne daan ngir fay li ma jóge defet bi ma jóge bor la ci man te faaw ma fay ko bu dee Abdou Diouf les gens Waalo la mu xam ne mooy waa Fass xam nañ ma bu baax dugg naa fa duggati naa fa sept combat laa am Fass juróom benn yépp dama leen a wulli benn victoire képp 2 te Forza bi may daan damaa pertoon samay repère boobee toog naa ñeenti at amuma combat ñeenti at yoo xam ne compétiru ma waxi Gris 2 lañ ma njëkkoon a wax mu teggi ma xooli feneen waaye bii yoon moom faaw ñu ne runkum daje Gris 2 l'éléphant noir de Fass ne ko bu ñu ne runkum daje dana metti ci yow dama lay duuma ba nga bëgg a dee ma soog laa daan Abdou Diouf ne ko li ngay woote bu dee dëgg la na nga dëggal sa bopp li ngay woote bu dee dëgg la ci moo tax mu ne ko dama lay yóbbu retraite building ne ko waxal lu la neex waaye xam nga ne yow ñemewoo jàkkaarloog man koor xeex ak man boo ko defee say mbokk jël la bu dee diggante fils de Zal ak caatu ngewel ñoom seen face bi démb la woon ca presse café foofee la fils de Zal xamle mooy damay xeex damay bëree jouru combat ba boo xeexee daanu boo bëree daanu ñaari boo ci def daanu bul fàtte ne maay boroom neuf yi neuf victoire yi maay jëriñoog foofee la buur siin wax mooy combat bi du duré ci ay laa lay jàpp yow Eumeu Sène Junior defal la affaire daan la Eumeu Sène Junior bu Mor Fadam ne ko ni nga ko fooge du deme noonu combat bi boo jàppee ne day yomb yaa ngi nax sa diggante Aline Sèye Junior ak ñàkk jëriñu foofee njar ndéem la woon la ko ñàkk jëriñu xamal mooy boo xeexeek man dem ardo boo jéemee résister am kaawo Aline Sèye ne ko sama wax du ci bëri damay xaar bés ba jot ma defal la li ba junju na ko waaye demu ca ba mu leer la mu xamle mooy daa am ñuy gor samay tànk bëgg galaa bi du am daa am ñuy gor sama tànk di saboté affaire bi di ko metti bu ñu demee ca terrain gaal gi foofu sixième journée bi boo fee caaka fay ak Boucar ñoo yóbbu kañot ya poids léger 64 litres la amoon poids lourd 64 litres ca poids ya Boubacar moo daan Abdou Karim Diouf en yóbbu 300 000 francs ma daanu finale yóbbu ca poids lourd péage ba à 100 mètres di péage de Thiaroye foofee la oto ba ne jëppi tàkk diggante 15 heures jàpp 16 heures la oto ba jàpp ba jeex tàkk jërë ngeen jëf mbokk li ma li gën a fës ci tu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah